di amaan mbégte lool ci jotaay yi nga xam ni noo ngi koy faral di amal ci ay bis yi ngir dundal cant gi nga xam ni Cheikh Al Xadim woote na ko ngir ñu santale ko borom bi tabaaraka wa taala cant yoo xam ni cantu rox lay doon waaye cant yoo xam ni cant yaram lay doon nu door ko ay bis yi jàll ànd ko ki woroomi xam-xam ci ay tomb yu wuute di sant bu baax ñi nga xam ni jot nañ fee jaar ak tomb yu am solo yu ñuy jàngal ci dunduk seexul xadiim tey nag nu amaat gan goo xam ni du aajowoo leeral mooy kan ndax kenn umpalewu ko ci ñi nga xam ni ñooy topp jotaay bi di sëriñ Moustapha Sylla damay wax ni mayug yàlla la ci ñun waaye xéewalug yàlla la ci ñun na ma ko xewoon ay bis yi jàll rek nekk na koo xam ni faqih la dégg na fiq lool roye ko ci imaam abu xanifa donte am malik la ku dégg fiq la ñaara ba tamit adib la bindkat la waykat la loolu la may wax ni ci imaam euh, Shaafi la ko doon ne waaye tamit teggin ak warma kilifa diine ji ak fun mën a nekk amee na ko loolu mu roye ko ci malik ibnu anas bu ñëwee nag ci sàmm gi mu doonne ko ci ahmad ibnu hanbal nekkut ay tagg waaye jikko la yu ñu gis ci moom moo tax loolu rek lañ koy tegal mu nekk sunu présentation ci moom kon li ñuy dikk tey ngir waxtaane ko mooy li ñuy waxtaane mooy seexul xadim xaadimu rasul ki nga xam ni waa jamonoom nangul nañ ko li mu doon ba tax nu yëkkati ay seede te dañuy wax ni seede ka fekke nu yëkkati ay seede jëme ko ci moom donte dañoo wuute fu ñu nekk ci ay gox ñenn ñi mu jëflante ñoom jëflante bu rafet ñenn ñi gis nim siggilee lislaam mooy ne ko waykat ba waxewoon lislaam a jooy yëkkat bi gën gàddaay ci soow jënd fépp mel ni làmbaay Cheikh Bamba daal di ñaan ci barkeb jiili ni yàlla may safiha kullu jiili maay xaadimum rasul fi sudaani maay ramu xarn bi ani niiraani Cheikh Ahmad Bamba moomu nag ñi mu jamonoonteloon ci ay kilifa lañuy ñëw ngir waxtaan ak Sëñ Moustapha mu indi ci seede yi ñu seede ci moom ak fu mën a nekk ci gox yu feccanti ko xëy na dañ koy bàyyi mu nuyoo bu ko defee ñu dugg ci laaj yi incha allah بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القديم والصلاة والسلام على النبي الكريم ورضي الله عن شيخنا الخديم mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di wax asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu di nuyu mboolem waa groupe bi eh, dale ko ci sëriñ Moustapha Kamal mi nga xam ne moom la war a seqal waxtaan wi di rafetlu itam jàmbaar gi nga xam ne moom mi ngi koy wane ci séminaire bi nga xam ne boobu ba léegi tàmbali na mu ne ci di ci def liggéey yu rëy nga xam ne ñun ñëpp ko ameelu cant ndax mi gën a jàngal sëñ bi te di ñu ko gën a xamal te jàngale nit ku baax dafa bari lu sa mën a juddoo moo tax alquran ay qissa la feese qissa ñi ñu baax ngir ñi ñu mën a topp ca ñoom waaru ca ñoom jële ci ay xam-xam ak i bind man caa jariñoo loo xam danañu mën a ñoo mën a jariñ ci dund gi ñu toll <coughs> ni mu ko waxee ci alquran laqad kaana fi qasasihim ibratun li ulil albab kon ginnaaw ibra li ibra lay doon li ulil albaab euh, ne war naa xam ne nett li kilifa gu toll ni sëñ Tuubaa loola dana bokk ca yëpp njariñ euh, waxoon na yonent bi ne ko euh, ak sax jullit ñi wa kullan naqussu alayka min anbaai rusuli ma nuthabitu bihi fuaadaka wa jaaka fi hadihi alxaqu wa mawcazatun wa dikra lilmuminin kon nettali qissab nit ku baax nit ki xam ay jaar-jaaram xam fii mu toll ba mu fa tolloo nan la defe woon daa bokk ci xeetu gindi wi gën a gaaw waaye wi gën a efficace ndax nit ki mën nga koo jàngal sax ab xam-xam ci ab téere waaye boo ko tegalee nag nit ne ko kii fii la jaaroon day day tax nag mu gën a mën a gëm ne woow yoon kat ndekete mënees na faa jaar ndax diw jaaroon na fa lii la ci jële waaye diw itam ba mu fa nanguwut a jaar lor ji yee ko fa dal kon ku baax ki ñuy waxtaane sax ci misaal rek waajuram soxna jaara daana nettali xissa yi ñu baax ñi ba nga xam moom tàmbali woon naa jeexeetal ci moom ci jamono joo xam ne ju teel la muy wane ne kon moom dañ koo mooñaale ak mbaax mu ñëwaale ko fii nii mu mel nii dañ ko koo mooñaale woon ci ak ndaw kon noonu la alquran di nettali leen mu nettali leen kat yéen kat am ngeen royuwaay bu rafet ci Ibrahima ak ñi àndoon ak moom ndax ñoom dañoo waxoon si nit ne ñun de des dañ nañ ci yéen ba set wecc ak li ngeen di jaamu te loola du yàlla qad kaanat lakum uswatun xasanatun fi ibrahima walladina maahu id qaalu li qawmihim inna buraau minkum min dunillah ba nga xam ne yenn borom xam yi sax wax nañ ne tudd xissa yi nit ñu baax ñi buñ koy def yërmande yàlla day wàcc loolu nettali nañ ko ci sufya ci sawri ibnu abdul bari nettali na ko ci jaamiu bayaanil ilm waaye itam abu nuaym indi na ko ak sanat ba ba ca sufyaan ibnu uyayna mu wax même wax laalakaay yi tamit nettali na ko ci yeneen kilifa ci as-salaf saalih inda dicre salihina tanzilu rahma kon suñ Moustapha daa mel ni guddal nañ sax ci tàmbali bi te ko euh, kon ñu ñëw rek ci li suñ Moustapha ñu déglu suñ Moustapha mu dugal laaj euh, jërëjëf Cheikh Moustapha noo ngi lay sant bu baax ci wuy si gi nga wuy si woote bi doonte xam-xam ak kër gi ñor na la lool waaye noo ngi leen ndokkeel bu baax tamit ci weeru màgg wi nu nekk xëy na dañuy njëkkanteeg waxtu wi dugg ci laaj yi euh, laaj bu njëkk bi mooy kenn nuy waxtaane moom jafe naa xam buñ ko bëggoon a xamle waaye ñi nga xam ni ay woroomi xam-xam lañu woon nekkoon ay nit yàlla jamonoonteeg moom def ay seede ci moom te dëkkoon ci biir réew mi ndax Sénégal bu njëkk donte dañ ko xaajoon ay xaaj naan réew réewi Saalum réewi Bawal réewi Njàmbur ak Siin réew réewi Kajoor euh, réewi Fuuta na mu doone woon noonu ñi fi nekkoon ci jamono jooju jamononteeg sëriñ bi te wax ci moom ay seede ndax seede ka fekke niñ ko waxe léegi ñi nekkoon ci biir réew mi seede yi ñu wax ci moom daal la ñu bëggoon a taataan ci yow waaw xam naa sëñ Tuubaa di moom day mel ni manistaa wax ne dëppoo nañ ci mbiram Euh, ànd ak ne kilifa yi nga xam ne ñoom la nekkaloon ci réew mi li ñuy wuute ay gox li ñuy wuutee tamit ay tariqa manis naa wax ne ànd nañ seereel ko li ko yàlla may xam naa dañuy tàmbalee rek ci koo xam ne kenn du ko laaj ci Sénégal muy cheikh alxaaj malik si attijaani euh, mi doon dund diggante mille huit cent cinquante cinq ak mille neuf cent vingt deux moom Tiwaawan moom na yàlla daa def day mbokkum sëñ bi ci diine ci tasawuf ci deret booleeg déggoog moom lool bala ñu ñëw sax ci seere bi mu seere ci sëñ bi dañuy njëkk wax ni diggam ak sëñ bi diggante bu neex la woon waaye dama ci irwa un nadim sëñ Mouhamadou ne Jóob Dagana dafa wax ne sama mbokk mu ñuy wax Mouhamad ibnu Ahmad ibnu Ali al Yaqubi dañ xame ko Mouhamad Touba nee na benn ci siyaare yi mu doon def dafa romb Tiwaawan siyaare alxaaji Malick si nee na bi alxaaji Malick xamee ne moom mii kat ci la jëm mu ne ko ah man de dinaa la dinaa la ay baat yoo xam ne dama bëgg nga jottil ma ko Sëñ Tuuba boo àggee ma ko am te nga fàttali ko guddi googee ma ko fekke woon Ndakaaru ak fanaan gaa fanaanoon moom ci néeg ba nga xam ne ñun ñaar dong ñoo fa fanaan kenn ñetteeluñu kurut yàlla fàttalil ma ko loolee boo demee ba mu fàttali ko nag boo demee ba mu fàttaliku ko ba ba xam ne wax nga dëgg nee ko nag man kóllëre googee ma wóllëre wante moom ma wóllëre wante nag moom euh, nee ko maa nga ca sëñ Muhammad mii nga xam ne nag mooy nettali wax ji nee na wallahi la aarifu ma la ahdu nee giñ naa ci yàlla ne coloré googu alxaaji Malik yónni ma ci sëñ Tuubaa nee na coloré googu man xam ma ko te moom itam dooli lu ci dara nag wala zaadani huwa alayhi shay'an loolu rek la ma wax nee na ma demee ba sëñ Tuubaa nag ba fàttaliku ko ba fàttaliku guddi googee ba sëñ bi fàttaliku ko euh, ma wax ko la alxaaji Malick wax nee na sëñ bi daal daal di bëgg daal di dëggal daal dëggal alxaaji Malick tamit daal di tagg alxaaji lu bari kon loolu rek wane na ne seen diggante diggante bu neexoon la loolu sax da koy seetlu ci bayit yi nga xam ne dañ koy joxlante ni kii bi nga xamee ne yónne yónnee na ko benn eh, hadiya benn may da ko caa tegaloon hadiyatun moojubu haj moojubu haj moojubu haj tilaabu mahabbatin hadiya la boo xam ne li ko waral kat mooy jéem a bijj ak cofeel waaye bi sëñ bi tontu itam boole na ca wa fii soxal wi daa di tartaabu xamal ni kat sunu soppante gu sell bu ci bu leen ci sikk kon digënté bu neex la won euh al alxaaji malik wax na ci seigne touba ne seigne bi euh neena nashaa mustaqiman fa innahu nashaa muxsinan mustaqiman euh, kon sëñ bi dafa sosu nekk kuy rafetal nekk ku jub xocc nga ne moom musta ci ay tarxiis lu mel ni bàkkaar yooyu yëpp sëñ bi kon nag seere bu mag a bu bàyyi ko ci kenn ci kilifay Sénégal yi gën a siiw Euh, muy alxaaji malik si nga xam ne moom la sëñ Basiir waxoon ne mooy assunniyul wariu ahadu aimati almuslimina wajaha birati salihin boo demee ci minanul baaqil qadim sëñ Basiiru nee na alxaaji malik sunniyu la bu sàmm waaye doon kenn ci njiiti jullit ñi kon ñu ñëwaat ci beneen balaa gën a gudd bokk na ci itam kilifay Sénégal yi nga xam ne ñoo doon njiiti diine ji waaye di njiiti tarixa yi nga xam ne itam seereel nañ Sëriñ Tuuba euh, alqaadi ma jaxate kala mu ngi doon dund moom 1832 ba 1902 bokkoon na ci borom xam yi gën a fës ci borom xam Sénégal yi ci jamonoom moo doon qaadi bu Kajoor doonoon mufti tamit kajoor jamono yi nga xam ne Lat Joor moo nekkoon buur bi doonoon tamit ab xarit ci Maam Mor Anta Sali nga xam ne mooy waajuru sëriñ bu mag bi bokk na ci lim seereel sëñ bi ginnaaw boo xamee ne sëñ bi jël na ci moom lenn ci fànni xam-xam yi qaadi mi ko doon jox fànni xam-xam yooyu ginnaaw bi nee na ko anta kunta kunta bnan fa sorta aban wa kunta tilmidan wa sorta cheykhan yow de nekkoon nga doom waaye mujj nga nekk far bàyyi nekkoon nga doom waaye léegi bàyyi nga di jégalu ci dog-dog boobu nekkoon nga doom waaye bàyyi nga fi mu ne waaye nekkoon ngab donga itam waaye fi ne ab sëriñ nga anta kuntab nan fa sërta aban anta kunab anta kuntab nan fa sërta aba wa kunta tilmidan wa sërta cheikha nekkoon nga donga itam waaye fi ni mujj nga nekk ab sëriñ bokk na ci lim seere seereel sëñ bi itam aw ba yit woo xam ne taarif la ko jëmale ko ci sëñ bi daal ne ko minni li ahmada bamba taarikin naasi gayra al ilahi fa amsa sayyidan naasi man jan maladan mafarran mawilan wazaran mawan lahum fi xululi al bu'si wal baasi bàyyi na ci man xoob yi jëm ca Ahmad Bamba mi nga xam ne moo bàyyi lépp lu yàlla moo fàtte itam moo fàtte itam lépp lu dul yàlla loolu nag tax mu mujj nekk kon sangum nit ñi kon sëñ bi la sëñ xawat gi tuddee fii ne mooy sayyidun naa si sangum nit ñi di wax ne ab muccukaay la ab wéeruwaay la ab làqutukaay la ku daw mën ngaa daw jëm fa moom ab wéeruwaay la itam ab ab fatukaay la ku am aw naqari daal maa ngi ne ci jafe-jafe ak wañs mën ngaa rew dem fa moom qaadi mii nag kenn la woon ci kilifa yi tijaan yu mag yi nga xam ne ñoo ne woon Sénégal doon kilifa gu mag di woon tamit boroom xam-xam bu rëy rëy euh, doon Kajoor Euh, bokk na ci itam ñi ko seereel te doon kilifa yu mag a mag a mag yoo xam ay jànguwaay lañu woon doon ci ay kàngam yu mag a mag xam-xam sëriñ Sayba Muhammad Ndumbe Maar Sill Sill euh, Cheikh Mouhamadul Amin Diop Addagaan yi nee na sëñ bi nee na ko sëriñ boobu da doon def rek saa yoo ma gisee am na bayit bu muy wax bayit la waaye da koy da ci def istishhaad am lu mu a wane di wax naa wa kam abin qad ala bibnin sharafin kama alat bi rasulillahi adnaanu bari na day bàyyi boo xam ne daraja mujj na kawe te mu yéeg njobbax tani tedd nga la ko waral mooy doom jum am xam nga ne Adnaan dey tey mel na am nañu koy binde kama ala Adnaan de boo gisee mu kawe Adnaan kawe na ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax Adnaan ñooñu ay maam lañ ci yonent bi bu seen daraja kawee ci seen sët bi nga xam ne mooy yonent bi kon day mel ni darajay baay kawe na ci aw ci doom kon ndax Adnaan kawe na ci kan ci Muhammad mi nga xam ne doom la ci moom sët wala boo ko defee giir giir gu kawe la ci yonent bi sallallahu alayhi kon bari na bàyyi boo xam ne la tax mu kawe darajay doom moo ko yëkkati sëñ Mouhamadou Lamine Diop wax ne yaani anna hada alfata zeynun wa kamalun li usulihi li mu bëgg wax mooy camsi ab taar la waaye ak mat la ñeel ay maamam kon loolu da doon seere ne kat Sëñ mi yëkkati ne kon aw xeetam wala ay maamam loolu seere la boo xam ne Sëriñ Tayba Ndumbe Maar seere na ko ci sëñ bi waaye itam am na beneen seere boo xam ne ku ñuy wax sëriñ Mouhamad Libaas Silla moo ko seere woon ci sëñ moom it doon waa wóolu réew maam Mor Anta Sali lool nga xam ne moom Mor Anta Sali defoon na xarit boo xam ne sax ñu bari teguli teguleen woon foofa nga xam ne lu muy def daanaka daanaka da ko daan woo ko ci laaj xalaat moom itam sëñ bi booba sax siiweegut mbiram siiwagut waaye mas naa jaar ñaxal te boobu kilifa yi bu am néew mu safaatu kilifa gu mag moo ko daan jiite kilifa yi ne buñ demee ba daje ba war a kàbbar sëñ bi agsi libaas ni ko jiiteel waaye ginnaaw boobu dañoo fonk kilifa kenn kenn tegu ci baat donte am na ñu ñu romtu ci kaw ndax ci seen gis-gis ñoom sëriñ bi seeni taaw lay maasel lu tax mu naan ko jiiteel ci béréb boo xam ne kilifa gu mag moo ko war a jiite ci seen baax ñoom waaye biñ sëlmaree waxoon na leen ne néew bi moom méréwuma yéen mere ngeen ma waaye néew bi moom wax waxoon na tam ne kii ci kanam mbooloo dana ko topp kon ñi nga xam ne yàlla mayoon na leen leer wala ñu xam dara teel nañoo seereel sëñ bi moom ak wilaaya nangul ko itam ñu ñëwaat ci beneen bokk na ci eh, ñi nga xam ne seereel nañ sëñ bi te ne ci réew mi te bokk ci seerekat yu mag yi al cheikh alxaaj abdullahi siise bu saalum sëñ mat lamin jóob nee na ku rafetooni wax ak pas-pas la woon ci sëñ bi na ku rafetooni wax la ak pas-pas ci sëñ tuuba nee majlis bi nga xam ne fa la doon jàngalee dafa am majlis ba mu nekkoon dafa am ay nit ñoo xam ne dañ doon wax ba tudd sëñ bi bay tudd sax wérdu bi nga xam ne da koo jël ci bi sallallahu am nit koo xam ne nag ca ña fa newoon am nit koo xam ne da caa wax mel ni daal day contre woo wérd alxaaj abdullahi siise mais daal di koy gëdd ne ko li ngay wax lan la cheikh ahmadu tijaani danoo wax ne nun del na wërd ci yonent bi yonent bi da ko dikkee wërd sallallahu alayhi wa sallam mu ne ko waaw mu ne ko moom kat ab ab borom xam la woon bu doon jëfe xam xam-xamam xam rek la woon bu doon jëfe xam-xamam xamam doonu nit ku ragal yàlla doonoon koo xam ne itam nituk sunna la sun jot rafet ci moom nu dëggal ko ndax sëñ day weddi ay wurdam du kenn kurut ku mel ni Seex Ahmad Tijaan moom itam borom xam la boo xam ne day jëfe xam-xam te ragal yàlla te nekk nitu sunna ndax mën nañ leen lu dëggal ko ngir rafet njort ci moom rafet comme comme ni nga xam ne noonu lañ defoon ci ak Seex Ahmadu Tijaan kon kooku itam seereel na sëñ bi seere su rafet waaye bokk na ci itam ci waa kër Seex Ahmadu Tijaan radiyallahu taala anhu ñi nga xam ne seeral nañ sëñ bi a Cheikh Mouhamad Khalifa am na xasida gu xaw a am ay way goo xam ne seeral nañ sëñ bi wax wax ne cheikhun cheikhun taqiyun naqiyun aylamun alamun fama sanaa'i bi motrihi wa amdaaxi nee na ab sëriñ la bu ragal yàlla waaye di sëriñ bu set di géej boole na ci itam wax ju am solo nee na commencé kon mel na ne wax na ne tagg bi mu ko tagg sax nag du tagg bu ko jey maanaam du see gën la wax na ko weesale dara jum amul ta cheikh Mouhamad Khalifa mii mook cheikh Abdoul Abdoulahi mook ñoo bokk waajur ci waa kër sëriñ allew na wii allew nii ci la bokk euh, te it mel na ni sax xasida gi mi ngi ko taalif ci ndigalul waajuram ci maalumaat yi nu am noonu kon loolu rek di wane yaatu dënd gi nga xam ne amoon na ak nangu gi nga xam ne nit ñu baax ñi dinañ ko faral di nangu baaxuk nit ku baax koo xam ne dañoo jamonoon teeg moom te lool it lu jafe la ndax boo xoolee sax ilmul jarx wa taadil kalaamul aqraan bokk na ci li ci gën a bokk na ci li ci faral di indi problème problème léeg-léeg nit baax lool waaye ci maasel jamono léeg-léeg ñu àgg ñu ñu xaw a bokk nuñ mel léeg-léeg ñu dem a dem ba àgg ci sax ulama ul kenn kay wax ci morom bi diis diisatu ko nangu loolu ñu jàng xam nañ ko loolu danay am léeg-léeg waaye gisoo ñi seere yu rëy yi nga xam ne seereel nañ ko sëñ bi ànd ak ni bokkuñu tariqa ba léegi itam mën nañoo jël seereb euh, sëriñ Ibrahima Niass alkawlaxi Baye Niass boo demee ci téerim bi wax ruuxul adab moom itam seere na fa seesu rafet ba tudde sëñ Tuubaa sax al am jëdu xadimu taaha wax ne al am jëdu mooy ko gën a tedd xadimu taaha tudde ko koo xam yonent bi baatu xadim bii kat fi ne daraja ju rëy la joo xam ñi ko xam xam nañ ne eh, xam nañ ne ndaw kon seere bu rëy ngoog nee na qad qaala fi haada al amjadu xadimu taaha al malikiyu ahmadu ci ruuxul adab eh, kon ñi ñëpp bokk ci ñi ñi ci bari ci ñoom ci ma tudd ci kilifa tiyaan yi lañ waaye nag du ñoom dong ba ci xaadir boo demee ci euh, Mauritanie waaye àgguñ foofu ñu ngi toll ci Sénégal boo jëlee ku mel ni a cheikh Abu Muhammadin il Kuntiyu nga xam ne nit ñi ñu bare bari bu Kunta Njaasaan lañ ko gën a xame njaaxaan defe naa ñu bari xam nañ ko mooy dëkk boobu den rek Tiwaawan Cheikh Mouhamadul Amin Diop nee na kenn ci sunu àndandoo yi nee na ñëw di siyaare Cheikh Bou Kounta mii nee na mu laaj ma mbirum sañ Touba hmm. te fekk boobu xam na ne sëñ bi moom na moom xam na moom xam na ne sëñ mi ngi dukki bi nee mu ne ma ana sëriñ bi nee ma ne ko ah moom de nasaraan yi dañ ko yóbbu mais mu ne ma déedéet yow ko ah kon lu xew mu daa dem ngir liggéey ngir fa nga xam ne fa la liggéey neexe ne na qaala dahaba li yaxdima xaytu tatibu bihi lxidmatu wan ko foofu sax ak karaama ba dégg ay nit ñuy wax tegal ko ci beneen seere bu yéeme kon loolu li wane rek ne kilifa yi ci tarixa yu bokkut yi fi newoon ci Sénégal te maase te fekke woon jamono Sëriñ Tuuba ak ñi nga xam ne sax ay doom lañ ci ñooñu ko ci mel ni Cheikh Ibrahima Niass al Kawlaxi te mënees na koo gën a yaatal Eh, seere nañ ànd nañ seereel siñ Tuuba ak wilaaya ak mbaax ak lépp loo xam ne des na ko seereel nit ku baax xam naa kon sëñ Moustapha ñu xaar la ci beneen laaj yamandi fii eh, jërëjëf Cheikh Moustapha ci seede yu rafet yi nga xam ne indi nga ko magi réew mi jëme ko ci Sëriñ Tuuba muy ñoo xam ne ñenn ñi ñoo ko féete ak mag ñenn ñi ñoom moom ñoo jamonoon teel ci ay at ñenn ñi moo leen fit ak mag ñoom ñëpp genn kàddu gi di genn ñoom ñëpp seenu kàddu di genn muy wax ju rafet joo xam ne bàyyi ko na ci ñoom te ñoom koo ci xool ak fa moroomam nekk bukk doon ñoom ñoo ñi nga xam ne seede nañ ci sëriñ bi lu rafet nga ñëw ci bàyyi xaat yi bàyyi xaat yi wax ci sëriñ bi lu rëy nekkoon nga sunu doom waaye tey ji yaay sunu bàyyi nekkoon nga sunu sëriñ wala suñu taalibe tey ji suñu sëriñ muy wax ci rafet rafet ba noppi bind ko bataaxal min nii li ahmadu bamba taariki naasi xayral ilaahi famsa saydi naasi kon sëriñ bi lan moo tax mu nekk sangum nit ñi mooy dafa bàyyi lépp ak nit ñi téye boroomam far boroomam def ko muy sangum nit ñi nga ñëw ci alaaji Maalik comme ni nga ko waxee woon bayit yooyu nga xam ne daan nañ ko jëflante di wane seenu cofeel seenu diggante seenu kóllëre ba sax kóllëre googu alaaji Malick dëggal ko ba mu gisee Mahamad Touba di ko xamal ne ko soo eggee nag nga ma ko fàttalil nga ñëw tamit ci ba si la Maar Ndumbe wala sëriñ Maar sëriñ Tayba Maar la moom tam mu wax ni wa kam abin ada ala bimnin sura sarafin kama ala bi rasulillahi addinaa ni nga xam ni moom day wax ni askanu Mbàkke tey jii buñ tollee fii nu toll kon ci mbaax ci dégg seenu tur sëriñ bi la na ko waykat ba waxee woon ban nuubaal ahma aqmaarun fal asyaaqu anjumun wa ahmaduhum samsun anaar lana tuuba nga ñëw tamit Sëriñ Abdoulaye Cissé bu jaamal moom tam li mu wax ci moom nga ñëw ci maam Khalifa nga ñëw ci Cheikh Ibrahima Niass nam ko waxee ca ruhul adab qad qaala fi hatha almajaali al amjadu qadimu taaha almaliki ahmadu nga ñëw tamit ci Abu Muhammad al Kunti kon sunu ñaareelu laaj Sëriñ Moustapha Euh, suñu ñaareelu laaj Cheikh Moustapha ginnaaw bi nga xamee ne dikk nga ci seede yu rafet yi nga xam ne ñi bokkaloon ak sëriñ bi suuf bokk moom réew mi noo ko yëkkati jëme ko ci moom nga xam ne ñoom ñëpp seen xol seenu bëgg seenu yittewoo sëriñ bi wane nañ ko ci seen jëflante kon sëriñ bi nekkul ku ñuy gàkkal ñi nga xam ne dañoo nekk ay woroomi xam-xam ci diine ji nekkoon Afrique sow jant ñoom lan lañ àddu bu fekkee ne am nañ ay seede yuñ yëkkat yi jëmee ko ci sëriñ bi yan seede lañ ci jëmale ngir nu mën koo taataan mën koo jëriñoo. waa jërëjëf euh, sëriñ Mouhamadul Moustapha laaj bi am na solo xam naa ñi ne ci soowu al aalamul islami par exemple ñu mel ni ñu ci addoorul magharibiya ñooñu itam seereel nañ sëñ bi seere yu yéeme waaye itam yooyu wane ne sëñ bi ca dëgg-dëgg kilifa la bu ñëpp nangu loon bal sax am na ci ñoo xam ne sax dañoo dañoo far jébbalu ci moom yëmuñu seere rek waaye jébalu sëñ bi lañ mujj def ñooñu man ñu koy jël ku si mel ni Cheikh Ahmad ibnu alxasan ibnu xamadi alxasani nga xam ne mooy sëñ Tuubaa njëkk a jox wërd mauritanien la ci borom xam yi nga xam ne nangul nañ sëñ bi te ne ci soowu jant ci lañ bokk wërd al wërdu moom mooy ki nga xam ne euh, al wërdul maxuud moom la ko sëñ Tuubaa njëkk a jox def nañ sax aw boo xam ne mu ko tudde dalilu man raamat dalil fi wërdi cheikhina al muqaddamil jalil bokku na ci ñoo ñu itam Cheikh Sidi Ahmad ibn waaw adaymani moom itam borom xam bu mag la woon boo xam ne jaayante na sëñ bi ci Safaara taqoo moom lu yàgg ci Sénégal tamit moom nag talib na ci ay fànn yu yu bokkut fiyee woon na itam ak wilaaya ak def ay karaama bokk na ci ñooñu itam Cheikh Mahamazan al yaqubi moom itam ab àttekat la woon xaadi la woon fële ca fële ca na xasida sax ci tawassul ci sëñ ak njabootu sëñ bi moom am na karaama yu ñu koy nett séwé woon na itam ak wilaaya bokk na ci ñooñu itam Cheikh Ahmad ibnu Ahmadi al Xasani moom itam borom bu mag la boo xam ne fële ca gànnaar la ne woon Euh, doonte mufassir bu rëy rëy rëy waaye tam bokk na ci itam ñi nga xam ne seereel nañ sëñ bi seere yu rafet ak Cheikh Sidiya moom nag li mu seere am na ci lool sëñ Mouhamadul Amin Diop ak dagaan yi indi na ko ci al irwa am na ci xasida bu mu indi waaye nag am na xasida yu bare bari yu wax ci sëñ bi yoo xam ne xam naa buñ ci yemoon boo muy jotaay bi jeex moom Cheikh Sidy rek xasida mi donc boo ko woon temps bi jeex ci wax kon xam naa ginnaaw dañoo bëgg a ñëw ci ñeneen dañuy coppati rek boo demee ci diwaanu Mauritanie yi ne bi ñu dajale indi nañ fa xasida yu bare bari yu mu wax ci sëñ bi waaye ma ñëw rek li nga xam ne ñu bëree bëri buñ koy moom la ñu faral di indi muy acheikhu ahmadu nicmatun awlaha haadi alxalaiqa kullaha mawlaha sëñ Tuubaa mii la goo xam ne yàlla moo ko may mbindeefam yi mbindeefam yii daal xéewal goo xam ne yàlla moo ko may mbindeefam yii loolu nag ku ko settantal xam ne seere bu rëy rëy la bu mat bàyyi xel loolu Seex Sidiya Baaba moo ko seereel sëñ bi Seex Sidiya mii nag mi ngi doon dund mille ak ba mille neuf cent doon faqih doon tamit borom xam xadis doon borom xam usul doon mu arrix moo beesal azzawiyatul qaadiriya nga gis ne mi ngi woon ci tariqa al qaadiriya al saydiya يبوت الميد تمر كان آه. كن آه. بوكنا سليم وقت سنبي فالح... آه، ما ضر أرضا أسعدت بجواره أن لا يكون rabiuha asqaaha suuf soo xam ne dëkk naag suñ Tuubaa day bu fekkonte ne itam tawut nga xam ne ab loolu leem màndalu ko itam du ko wàññi dara waaye wax na ci moom wax yu xóot xóot ci xasida yu bokkut xam naa ginnaaw dañuy tënk rek ah, dañuy coppati fenn bokk na ci itam li ko sax si di seereel ñu jaar ci ba dañoo jàll te sëñ محمد بن البشير نتلقوتي منن الباقي القديم من ولم تؤثر عنه فعلة يستحيا من حكايتها أو كلمة يندم عليها يندم عليها قط يستحي من حكايتها أو كلمة يندم عليها قط ولم تؤثر عنه فعلة يستحي من حكايتها أو كلمة يندم عليها قط diirub lim jaxasoog ñi noon yi ak li ñu bari bari kàttan mosi su koo nett lil jëf joo xam ne euh, dana rus boo ko nettalee wala baat boo xam ne wax na ko te rëccu na ko kon loolu doy na seere xam naa sax si di moom seere na ci moom lu bëree bari euh, ci ci sëñ bi Euh, boo ko toppee nag da di ginnaaw da ngaa bëgg indi ñeneen day mujj day mujj bari bokk na ci li muy seer siñ ci wàllu topp sunnaam mu ne tanqaadu li sunnati albaydaa i muttabian walasta li sunnati suua bi mun qaadi tanqaadu li sunnati albaydaa i muttabian walasta li sunnati suua bi mun qaadi kon euh, kooku mooy sax si diin waaye bokk na itam ci ñi nga xam ne ñoo seeral sëñ bi Cheikh Saadu Abi moom mi ngi doon dund diggante mille ak mille nag aarif bokkoon ci kilifa yu mag yi ci tariqa qaadir ak borom yi ci murtani ak amoon tam taaliba yu bare bari ci gox boobu na ci sëñ bi ay seere yu bokkut Euh, xam naa dañuy gàttal rek dem ci kanam bokk na ci génn xasida ma nga fay wax naa wa badrun munirun xaaba fi lgarbi summa laaxa mil garbi shamsan rifaatan wa intishaara ne aw weer la woo xam ne weer wu leer naññ la woo xam ne dafa fàddoon ci sowu ginnaaw bi mu feqat feqewaat ci sowu googee mu fàddoo woon waaye bi nag day mel ni kon darajaam yokku na ndax bi muy feq ab jant la ab jant la ci walu ni mu yëkëti ko way ab jant la ci walu ni لذا الدين الغريب الذي بلا يتيه سرورا منكم وافتخارا من دوك الاسلام كي بيغوم بيك سي سي خادم الرسول ادمو غومي دمو سي خادم الرسول موم الاسلام kon euh, kii kenn la ci tariqa kilifay xaadir yu mag yi euh, te bokkoon ci ñi nga xam ne ñoo dund ci garbul aalami islaam yi di kilifa seere loolu ci sëñ Tuuba waaye day mel ni kon ñu bare yi ma rombagul ñenn ñi ay tijaan la waaye itam du dong ñi nga xam ne ñoo newoon itam seeral nañ sëñ bi lu mel noonu ci ñi nga xam ne ñoo féete woon fii te ci jël ku ci mel Cheikh Baaba ibnu Muhammad ibnu Hamdil Haaji moom sëriñu ñi nga xam ne ñoo ne ci tarixa Chazaliya la ci Murtani ci jamonoom doonoon tamit borom xam boo xam ne bu màgg la amoon ay taalif yu bëree bëri ci xam-xam yi nga xam ne ñooy xam-xam yu diine yi ak xam-xam yu arab yi amoon tamit ñu ko topp sax même fii ci Sénégal Euh, bokk na ci lim seere ci sëñ bi di jégglu ci téléphone yi ni muy dog doge léegi day léeg rek <laughs> kenn day jékki woo la mbaa yu mel noonu euh, nee na xam na ne sëriñ bi borom xam la xam na ne itam adib la xam na ne itam wàllu la ne ñett yi moom xam na ko nee bu dee xam-xam bi nag moom firnde yim ci am mooy dama dama wax moom bi ma waxee moom itam gis naa ni fi nga xam ne moom la ñu bari juum ci borom xam yi nga xam ne ña nga xam ay borom la dañ koy faral di juum moom moom Sëñ Tuubaa du fa juum bu dee ak wilaayaam tamit nekk gum nekk wàll yu moom ay dëkk ay tegtal yu bari laa ci am moom li gën a yéeme nag fi man moom mooy adab bi nga xam ne da ko yor te ñi nga xam ne ñooy dund ci jamono ji yoruñu ko nee na أعلم من ذلك ثلاثة أمور أنه عالم وأديب وولي وأما العلم فقد تكلمت معه فوجد فوجدته لا يخطئ الصواب في مواضع غلط الكثير من العلماء وولايته عندي لها دلائل يقينية وأغرب شيء فيه عندي adabuhu lmafquudu fi bani zaman kon kooku kenn la ci ñi nga xam ne ñoo ne ci tariqatu chazali ñu seere ko ci sëñ bi kon ñii sëñ Moustapha ñeen lañ ci ñi nga xam ne nekkuñu senegal tey dund ci garbul aalami al islami adduwalu al magharibiya ñu seerale ko sëñ bi xam naa ñu ngi xaar kon beneen laaj kon xam naa ñu xaarale sëñ Touba sëñ Moustapha xam naa sax xëy na diwaan shuara al mauritanie rek daanaka doyoon cinquante naar cinquante mauritanien yoo xam ne ay borom xam-xam lañ ku ci ne rek def nga xasida ci diwaan boobu tag sëñ bi xamna lolu mom man nañ ko duggal ci biir fi nu toll muy ñi féeri so jant seen seen ci sëñ bi xamna ñu xaarale sëñ Moustapha ci ki al cheikh abdallah attamakliyu addaymaani moom moo wax na ala mil ila daari salaami wa tuuba ida xifta min raybi zamaani xutuuba li min bi tanaalu biha xusna al maabi wa tuuba demal jàngal jëm Daaru Salaam ak Tuuba bu fekkee ragal nga jafe yi nga ci jafe-jafe jamono ngir nga tuuxu ci xawsu zamaan yi mën a gis xawsu zamaan yi ci xool boo xam ne da ci amee rafetuk ab delluwaay da ci amee ak texe kon Cheikh Tanbaghi dañu ci bari sax Cheikh Mouhamadou Amine Diouf da waaye xam naa dafa mel ni mi ngi guddi ndànk-ndànk te daa mel laaj mën naa mu des kon ñeemali foofu ba beneen laaj ñëw jërëjëf Cheikh Moustapha ci seede yu rafet yi nga xam ni boroom xam-xami jullit ñu nekk ci Afrique soow jant wala monde islam soow jant indi nañ ko Cheikhul Khadim nga dem gànnaar fekk fa naar ya nga xam ci ay giru feccante koo lañ bokk ñoom ñëpp nu bokk waxandoo wax ju rafet ci sëriñ bi nga dem lu mel giru deman ña fa wax ci sëriñ bi bari na nga tànn ci ñenn ak xasan yun yi ak tambaqi yun yi ak yanqoobi yi ak majlis yun yi ak euh, kum yun ñoom ñëpp indi nga seen wax ci sëriñ bi nga tànn ci ku mel ni Cheikh Saadu Abi moom borom xam-xam bu mag ba nitu yàlla ka bu mat ba bokkoon ci giiru euh, wala moom mi waxoon sëriñ bi laataa muy tukki dafa war meloon nekk ci biir suuf waaye bi demee ba jax sa tubaab bi dafa mel ni benn jamaa buñ génnee ci biir suuf si rek mu mel xet di leeral jamono waaw ak euh, bëyulum abon te benn borom xam-xam waxoon ko ci bu yàgga yàgga waaw daan ni xalifa samaanu la yaati yenn bi mislihi xanisa jamiinu ko yaa samaanu fakka fii nga ñëw tamit ci cheikh sidia baba moom itam mi waxoon cheikh ahmadu nihmatun awlaha muy ay abya di am solo xasida gu am solo gum jëmoon ci sëriñ bi nga ñëw tamit ci borom xam-xam bu mag ba sunni ba di cheikh abdallah atamkalaawi ad daymaani moom itam bayit yi nga xam ni sëriñ Muhammad Lamin nee na neexoon na sëriñ bi lool muy alaamil ila daari salaami wa tuuba isa xifta min raybi samaani qutuuba Euh, muy ay abiyaat ñaar ba ñett yaakaar na muy am solo nu ñëw suñu laaj ñetteel laaj bi moo ngi jëm ci Serigne Touba ginnaaw naari gànnaar yi muy Afrique soow jant borom xam-xam yi fi nekk ak ñi bokkaloon biir réew mi seede nañ ci moom ay seede yu rafet ñi nga xam ne dañu nekkoon ci penku bi penku bi nga xam ne mooy monde islam euh, ñoom ndax am nañ ay abiyaat wala ay seede yoo xam ne seede nañ ko ci sëriñ bi yoo xam ne day wane ni kii daal mujjadit gi nga xam ni moom Serigne Touba woote na ko ñoom ñëpp nangul nañ ko ko ndax am na ay seer yoo xam ne bàyyi ko na ci ñoom. ñi nga xam ne ñoo yónnee leen ay yu mag lañu woon yoo xam ne ay attekat lañu attekatu Madina mën a war ci la bokkoon Ibrahima Bërëri ak ñeneen mbooloo lañ seeni tur ñu ngi ci cinq bu ay kilifa lañ fa ay sëriñ ay sëriñ ay kuréel ak kilifa ñoo ànd bind boobu lettre kon euh, defe naa ne sëñ bi day mel ni kon daanaka penkook sowu réew mi bitim réew day mel ni rek daanaka ittifaaq am na ci mbiram am na genn kilifa goo xam ne Ibrahimul Bagdaadi ñoo dem doon kilifa bu mag bu mokkal lu bari di borom bu mag bu yéeme waa ni ko seex Mouhamadul Amin nettalee ci irwa mel na ni yéeme woon lool bokk na ci daa mujj sax jébbalu ci sëñ bi bokk na ci li mu waxoon xaraj xarajtu min bagdaada ala ma alimta minni wala hamma li illa man yaxudu bi yadi fa kam min waliyin wa aalimin laaqaytu wa ma samamtu raihata ma uridu illa fii ba muy tontu daa wax ne man di jóge naa bagdaad ci ci li nga xamoon ci man kam doon tontu te booba itam ëmma woon yenn yitte lu koo xam ne day jàpp ci sama loxo rek bari na nag wàlliyu ak borom xam bu ma dajeel waaye laa bëgg xeeñu xeeñtuwuma ci moom xee xetuk laa bëgg ci sëñ bii dong daal laa bëgg ci laa ko fekk maanaa li li nga xam ne daal moom laa bëgg xet googu ci sëriñ bii dong laa ko yëg mu ne fa bi dalika taallaqtu bihi nee na loolu tax ma jébul ci moom wa baayaatuhu jaayanteeg moom ginnaaw boo xam ne ñenn ñi dañ ko doon yedd na lu tax nga jébul ci moom ak yooyu ndax lay kilifa nag moom kon sëñ bi lii sëñ Moustapha ñeen la ci boroom xam-xam yi nga xam ne ñoo féete woon penku te doon seere ci Bamba radiallahu taala wa moom de xam naa bu dee Mauritanie yi sax dama mënoon naa gën a yaatu waaye bokk na ci li gën a yéeme mooy li mu fa yàgg yàgg maanaam moom kenn du ko fa weddiwul eh, ànd ak ne ay weddikat yu mag a mag ñoo fa nekkan bu dee laaj bii nga laaj nag dañu naan diis ba ci penku tuuti. diggante Palestine ak Liban seeti a Cheikh Youssouf Annabahani moom mi ngi doon diggante mille cent quarante neuf ak mille cent trente deux doonoon borom xam bu mag bu sàmm itam bëggoon yonent bi sallallahu alayhi wa te mënoon koo tagg bokkoon ci borom xam yu mag yi li mu wax ci sëñ bi xawaa njëreemu culuman lil ilahi wa fadlan laa yumannu wa fadlullahi mamnuunu حوى الخديم الذي لولاهما سجدت لولاهما سجدت على الجباه ولم تقرأ به نون إن امرأ فاته المختار من مضر وفاته خادم المختار مغبون كن بيد يوغا خامن الشيخ احمد مسك اندينا با يلي كو يوسف النبهاني بيد يو جوتالي لا انا نديرم امنا خم خم يو خامني am na ay xam-xam eh, am na ngëneel loo xam ne am na xam-xam yàlla ak ngëneel loo xam ne kenn du ko dagg wa fadlul xayri mamnuun te ngëneelul keneen ku dul njëriñ nag ngëneelam koy dagg waaye ngëneelul njëriñ moom kenn du ko dagg ndax kat am na xaddiim muy Sëñ Tuubaa mi nga xam ne burlu woon ak moom du su jot ci ay jë di su fa jàng ak noonu bis jàng noonu jëpp waay joo xam ne daal yonent bi raw na la ka nga xam ne moom lañ tànn ci jiiru Mudar yonent bi raw na la sëñ Tuubaa itam raw la sëñ Tuubaa moom nga xam ne mooy liggéeyal yonent boobee xamal ne yow des laa nax kon kii kenn la ci waroon xam yi ñu féete woon penku moo kilifa goo xam ne nag falu na ay poste yu bokkut ci wàllu xam ak ci wàllu àtte réew ak sax ci liban <coughs> doon ci ay réew sax laa du am réew waaye ay réew la nekkoon kon seere na lii sëñ bi waaye itam xam naa ñu jaar-jaar gu gaaw ci seere yoo xam ne ay kilifa ab lim ci ay kilifa ca Madina Munawwara moom itam di ci di bokk ci réew yi nga xam ne dañoo ne ci penku al alamul islami muy al mamlakatul arabiyatu saudiya seere nañ ko ci sëñ bi bi nga xamee ne sëñ bi noppalu na laata ñu am ñaari weer kilifa yooyu dañoo yónnee benn lettre lettre um jaal ak marsiya ci Cheikh Mouhamadul Moustapha lettre ma nag wax nañ ci wax yu bëree bëri yu daw yaram tagg ci tagg ci sëñ bi tagg ci sëñ bi lettre bi tuddee nañ ci sëñ bi cheikhu shuyuux sëriñub sëriñ si wa umdatu dawil maarifi mooy sukkandikukaayu ñi nga xam ne ñoo ñooy borom xam-xam yi war rusuuxi borom xam yi nga xam ne ñoo sëxan ci xam-xam xaadimu diiwaanil Mustafa nii lañ tudde sëñ bi وإمام أهل الوفاء والصفاء نيغا خاني نيو ماتال كول ري اك نيغا خاني نيو سيلال موي سين امام والمحسن الينا حين يسيء الينا الزمان بو فك جامونو دا نياوال جيما سي نون موم موي كيغا خاني موي رافال ديم سي نون والموسع علينا حين تضيق بنا البلدان موي كيغا خاني مو ني بو فك ريوي دانيو دا خات سي نون kon ñii seen lettre bi wax nañ ci wax yoo xam ne ku ko seetantal xam ne du wax yu ndaw boole nañ ci xasida itam boo xam ne ñu ngi ko ubbee maata tuqaa wal ilmu wal irfaanu waswadda min baadi diyaas suudaanu min baadi diyaas suudaanu ak ragal yàlla ak xam-xam ak xàmmee xam suñ boroom tey faatu nañ réew yi ñi ñuul ñi ginnaaw bu ñu leeree tey ñuul na lamma qada cheikhul mashayixi nahbahu bi nga xamee ni euh, sëriñub sëriñ si jóge jóge na fi kon dem nañ ba ne cheikhun bihi kunna nasuulu ala al ida wa naudduhu فهو أمان ويكرم نحن من الناس وانجلوني شيخ به كنا نرد الفقر عن أبنائنا ويكرم من خمنا moom lañ daan fege ak ñàkk wër suñuy doom ak ñàkk dal sëñ bi lañ ko daan delloo ba du ak si ci suñuy doom xaysul faqiru yuhaanu fépp fuñ masaa di soraxal ku ñàkk dal sëriñ bi moom lañ daan aare kooka kon ñii ñeen lañ ci borom xam yi nga xam ne ñoo féete woon penku te doon seere ci sëñ bi yii nag duñ kilifa yu ndaw ñi nga xam ne ñoo yónnee jërëjëf Cheikh Moustapha ci leeral yu am solo yi nga xam ne indi nga ko mooy ay seere yu bàyyi ko ci ay woroomi xam-xami jullit yu wuute fu ñu nekk ñoom ñëpp ànd nangul sëriñ bi ci mbaax ànd nangul ko ci wilaaya ànd nangul ko ci lim nekk wuutaa konu yonante bi sallallahu alayhi wa ci kaw suuf muy ci xam-xam muy ci ragal yàlla muy ci tasaare sunna moo tax eh, na ko siyuti rek ki nga xam ne war naa mën a wuutu yonante bi di yeesal diine ji moom faaw mu dajale fànn xam-xam yépp waaye tamit waa jamonoom nangul ko wa an yakuna jaamian li kulli fan wa an yauma ilmuhu ahla zaman waaw noonu lañ gisee sëriñ bi xëy na dañuy ñëw ci sunu laaj bu mujj mooy sëriñ bi gis nañ ni daanaka bi mu mënalee boppam tuuti rek la ko tubaab bi yittewoo daanaka toogut benn yoon am jot goo xam ni eh, dina ko mën a am ba mën a defal mbir yu fi boppam waaye tubaab bi mu jaxasoo woon ak ay at yu bare bare bari diggante dix huit cent quatre vingt quinze ba bi muy dellu ci boromam tabaaraka wa taala daanaka diggante boobu yépp ci ay loxo la nekkoon ndax tubaab boobu am na lu mu wax ci moom tubaab bi ndax am na lu mu wax ci sëriñ bi waaw jërëjëf sëñ Moustapha ci taaliq yu am solo yi xam naa ñun sax ñu ngi jàng sa taaliq yi eh, day mel dañoo war a na wëlbati may laaj ngay tont xam naa ne <laughs> ci la doon yaa ma gën a fasaxa ah, mel ni eh, noonu nga ko waxee rek sëñ day mel ni li jullit ñi wax daa mel ni yéefari yi ko doon sonal xam naa ñu dale ci ku mel ni Merlan <coughs> muy yenn ci tubaab nga xam ne France mooy leen fi teg ànd ak noonoo ak ndëgg sërax yi nga xam ne teg nañ ko ba tàyyi ngir jéem a sëñ bi te sottiwut teewut taarix enregistré na ay seere yoo xam ne seereel nañ ko sëñ bi am na ci yooyu gëstu bi nga xam ne waa raw du raaxin def nañ ko gis naa ñu indi ci yenn wax nañ ne bokk nañ ci ñooñu ki nga xam ne euh, moo doon حاكم بني وان سنغال ميرلان اك كيغا خاني مو نيوان جوربل موي انطوان لاسيف ا ميرلان دا نو واخني دا واخ سي سيغ بي ومن ادل الدليل على صدقه في امره ان نفسه وحياته متوقفتان على دينه oqdaaluhuma fi sabilihi fi sabilihi ahwanu cheyin alayh Merlin wax na ne bokk na ci li gën a tegtale ne sëñ bii ku dëggu la ci mbiram mooy bakkanam ak dundam ñi nga aju rek ci diineem mën naa ñàkk bakkanam ak dundam léegi ci yoonu diineem lu doyadi la fi moom li gën a fi moom mooy ñàkk bakkanam ci diineem wala ñàkk ak dundam ci diineem loolu nag defe naa ne bu seere bu ndaw si Moustapha koo xam ne fexeel nga ko wet gu ne gëstu ko wet gu ne mujj ngay wax ci moom lii te alxaqu ma shahida bihi al aada waaye itam am ku ñu wax Antoine Lassem nga xam ne def na ay rapport nga xam ne moo doon xaatim bi ne woon Bawol def na ay rapport ci mbirum sëñ bi octobre 1913 novembre 1915 rawatina rapport bi nga xam ne moom la def ci 22 octobre 1915 nga xam ne gëstukat yi Euh, tuxal nañ yooyu rapport ci seeni téere la seef mii nag comme ni ko sëñ Basiiru waxee ci minanul baaxil qaddim moom lañ santoon moom la tubaab bi santoon muy doxal mbirum sëñ bi di xool mbiram du teeg biir ngir xam dëgg-dëgg yi mbirum sëñ bi moom la ko tubaab bi sëñ ko santo santoon waaye ci rapport boobu nga xam ne moom la mujj def jot na saa tudd ne néegi sëñ bi li ñuy bari bari ci Touba ak ci Jurbel ay téere moo sa nekk waaye ay gànnaay li wuñu ko alalam itam alalam yu bari yëpp tam ci mbirum sarax yi la koy dundal ak ay ak ak di ko maye di ko joxe ak bokk dem na sax ba ne ak di ko jënde ay téere ak yu mel noonu ay gaal ak yooyu ay walis wax ne ne itam ne ñépp dëppoo nañ ci xam-xamam bu yaatu ci wàllu arab moo xam luxa la wala adab ñëpp dëppoo nañ ci ne xam-xam xam-xamam bu yaatu ci téere yi ñu taalif ci arab moom dong mooy sénégalais bu ñuul boo xam ne laxasewut am réew réewam kon lii bokk na ci li nga xam ne tubaab ci boppam mujj nañ di ko seere ci Mawlana Xaadimul Mustapha wax na itam ci rapport bi ne waxtoom da ko séddale waxtoom da ko séddale diggante jàng ak jàngale loolu bokk na ci li ñëw ci euh, rapport bi wax na ne jàngale googu itam lu bare bari ci àll bi la koy def waaye na suuf si lay def lu mel ni tableau di ci rëdd ci baaraamam ay ay ay ay ay ashkaal ay melokaan ak i rëdd ak yooyu ngir leeral euh, information yi mu bëgg a la ba nga xam ne ñi ñiy déglu dañ ko mën a xam wax na itam ne waasiul ilmi nee na ku yaatu xam-xam la moo gën jikko itam ay naawleem nee na itam nuwaraa uxoo ñi nga xam ne man man si na leen tuddee ay naawleem nee na ñoom ñëpp ko wormal ñoom ñëpp ko wet ànd ne la bi ku ne xam nee nañ xamoon nañ ko ci ne moom euh, kenn ku nekk na mel la lay seereel loolu nee nañ bokk na ci lañ xamoon ci moom dana far faral kenn yooyu doo ko faral di def ak di feeñal lu bokkut ak li muy nëbb ci biir euh, kon lii tubaab yi nga xam ne ñoo teewal bi di ay yéefar ñoo ko seere ci sëñ sëñ bi kon day mel ni daal sëñ Moustapha ci sa laaj mujj bi kon ñu man cee tënkaale ne kon sëñ bi ñi mu dëkkaloon ci ay kilifa ñi mu dëkkaloon ci dend ñoom ci ay réew bal sax ñi ko xawoon a sori ca penku bu jege ga gën a sori hmm, waaye guddi gu doomu gi bokk ak gi gën a sori eh, ak sax yéefar yi nga ne moom ñoo ko seen loxo la la newanta ñu contrôler ko wet gu ne sax ña ñu sasoon ñi di ko contrôler ñoo ñoo mujj di seere lii ci moom jërëjëf Cheikh Moustapha Al Karim noo ngi lay sant bu baax ci turu alxaq saabit di la ndokkeelaat ci weeru màgg wi waaye tamit di am kontante lool ci seede yu rafet yi nga xam ne indil nga nu ko mu bàyyi ko ci ay nit yàlla ay walliyu nu wax ko ñoom duñ waxee seen bànneexu bakkan seede ko jëme ko ci Seexul Xadiim nga jiital ci alaaji Malick si di mbokkam ci diine mbokkam ci deret mbokkam ci réew mi te ki sëriñ Xaadima Jaxate Kala nga xam ni kilifa la ci sëriñ bi ci ay at ne ko de yaa nekkoon sunu doom waaye tey jii yaay sunu kilifa yaay sunu baay yaa nekkoon sunu taalibe waaye tey jii yaay sunu sëriñ nga ñëw ci sëriñ tey ba Marcel mu xam la ni tey banu Balla banu Mbàkke Momar Anta bu tollee fii tey ci mbaax doom ji Ahmadou Mbacke moo ko waral nga ñëw ci maam Abdoulaye Cissé maam Khalifa maam Baye Niass waaye noonu nga ñëwee tamit ci borom xam-xam yi nga xam ni noo bokkoon Afrique soowu jant di ay borom xam yi diine muy naari gànnaar yi nga tudd ci ay kilifa waaye noonu nga ñëwee ci borom xam-xam yi nekkoon ci penk bi ñu nekkoon Makka ma Madina nga xam ne fa la lislaam sampoon ay reenam di law bànqaas ñëw ba. afrique sow jant nga tudd ci ku mel ni eh, alqaadi ibrahim birr ak mbooloo mi àndaloon madinatul munawara di jaale ci sëriñ bi waaye tamit di wane ni sëriñ bi tey jii mooy représenté yonent bi ci kaw suuf nga ñëw tamit ci a cheikh yusufa nabahani mi nekkoon xursu jérusalem ca fa nga xamee ni fa la yonent yépp jaar ku fa jaarut ak eh, sa jëmm sa ruux dem na fa te wax nañ ñëpp fa jaar ak seen jëmm ba ci sunu yonent alayhi salaatu wasalaam eh, Cheikh Yusuf Nabahani ni képp koo xam ne yoreel na yonent bi ab bor te Ahmadu mi raw la te fayu ko ko doodoo ko ko fayati waaye naka noonu ci lañ wàccee ñi nga xam ne ay noon lañ nga jiital ci Merlin Merlin taxawee taxawaayu Abu Sufyaan jamono ja nga xamee ne yonent baa ngi woote mu gisanteeg xirax la eh, buuru buuru perse yi wala buuru romain yi bi koy laaj ci Muhammad ay jikkoom taxaway ba Abu Sufyan taxawee won nga xamni ni bi gën ci seede yi moy busam non noonu mu xam xamle sëriñ bi ci ak bimi ak jikko yi rafet nga ñew ci Antoine Lacef euh, mooy bataaxal bi mbindon bi mi jóge njaareem ci 22 octobre 1915 di wax lim gis ci jikko yi rafet bi kontan nañ lool nak di la ñaanal borom bi tabaraka taala sammu sunu kanam yagal la fi lool nga yag ar ji ndax dangaa nekk jaasi joo xam ni yaa ngi dog ay doq yoo xam ne ay noonu lañ ci lislaam donte dañuy woo ay jullit donte dañuy woote ak njullit waaye lu bare bare yaa leer ci diine ji man moom damay wax ni sama professeur nga damay jànge ci yow lu bare bare bare bari te xam nga ni sama professeur nga ndax am na bunt yoo xam ne su ci jaaxale rek yow laay jokkoo directement moo xam ma wala wala ma yónnee la ko bataaxal ci jumtukaay yu bees yi yu xarala yi